communautaire yi mooy kenn xamul ku la wàll loolu dafa commencé bari te bu ñu demee ba nga xam ni tey suñu voisin direct muy Parcelles Assainies yi avec euh, le maire Moussa Sy am loolu ñaan ñu ko yàlla ndax tey dañu naan sa bu sa bu sa dëkkandoo lakkalee amaana lakkay mën a egg sa dëkk yi ñaan yàlla rek mu jëlee ko fa jëlee ko ci Sénégal bi yëpp ak ci Dakar yëpp ci àdduna bi sax loolu moo tax ñu ni kat nañu jóg parce que Cambérène Parcelles benn la ndax dañuy demalante dañuy dëkkalante alors moo tax tey ñu jóg bien que nag mosuñu dañ ko def ndax depuis bi affaire bi amee ba léegi am na équipe ci terrain bi am nañu oto buy wër commune bi chaque jour du bàyyi di sensibiliser wax na du doy ndax comme affaire bi demagul ba léegi mi ngi fi et donc il faut que la il ñu làbbali tey nag ñu ni tey nañu jóg xool vraiment dimanche la kenn xëyul ñun ñëpp ñu jóg ah góor ak jigéen mag ak ndaw dugg ci dëkk bi ci 15 quartiers yëpp waxtaan ak fekkin ni feebar bi mi ngi fi te feebar bi ni ñu koy waxee ne du dox nit ñi ñooy dox di ko yóbbu donc su ku nekk toogee sa kër su ku nekk euh, respecté li la sant amaana eh, feebar bi dootul demati fenn su boobaa dañuy am jàmm comité bi nag man naa ko jiite ñu ñu médecin chef bi chef Sadibou Diouf mi ngi si suñu caracifal bi jiite comité développement sanitaire bi mi ngi si madame Diallo bi jiite poste de santé Cambérène 2 yoom ñëpp waaye comme dañu ni wax du doy te am na ñoo xam ne nag ay borom kàddu lañu te amaana tamit ñoom moo la di topp seen gannaaw muy pàccali gox yi muy imam yi muy délégué quartier yi muy notable yi muy ASC muy jeunes yi muy corps médical bi nekk pharmacien yi ñoom ñëpp même le privé ku si nekk rek ñëw ñëw nga jàpp si ndax comité bi large la seulement que bu ñuy def réunion amaana du ñu mën a woo ñëpp parce que bu ci yoon loolu da cee tere donc dañuy woo une de personnes ñu waaye tey bu mu wax ak koo xam ni mën nga jàppale Cambérène rek si nga bokk ndax xel du doy te moyen du doy di gërëm aussi occasion ndax lu ñu lim waaye am na ñoo xam ni benn euh, masque deux masque casquette xaalis lépp lépp di ñëw Cambérène daal vraiment gàcce gaalaama. bu mel ni nag plage bi gars yi xale plage bi jóge nañ fa plage gi nag moo tax.

te tey kenn war a taw ko bu ñu demee ba ba ñu lim benn dem ba ay 700 ak 600 xam ne kon loolu dëgg la te loolu nag euh, nañ ko bañal suñu bopp ndax su ko ku nekk dafay saxee bu bopp rek di dafa jóge te xale yi macha allah ñu ngi ciy jël euh, conscience di xam ni dëkk bi war nañ ko aar war nañ ko sàmm ndax mag ñi génnuñu xale yi ñoo génn waaye xale yi ñu ngi commencé toog. jërëjëf merci.